waaw mais gars yi Côte d'Ivoire comme qualifié na nii ak yooyu metti ñu fi nekkee woon am benn victoire mujjee qualifié meilleur troisième grâce à kii Maroc tey victoire bi nga xam ne am na ko mais Côte d'Ivoire ñu la naraam mais kenn xamatul lii lan la salaam gars yi bégg naa la nuyu ko ci nekk seen tur seen sant door sa trois premiers matchs de poule génneeg neuf points benn but encaissé ñëw dajanteeg pays organisateur bi <laughs> Afrique daal da ngay tas mais teewut gars yi sunu équipe bi ñu yore nii amul Côte d'Ivoire yi nit bu indoon ci stade bi. samay joueur wóolu naa leen nag gone yi ma yore fii ñëpp daanaka ñi ay français lañ ñii ñu ngi ci club yu mag pression jaaxalu leen stade bu fees jaaxalu leen dem ñu accueillir la ci stade jaaxalu leen dañuy dem wane fulla ak fayda gagné leen Guinée équatoriale bu dooree Côte d'Ivoire ci dëkkam Nigéria door ko ci dëkkam waxuma la ak ñun amul Côte d'Ivoire dafa am confiance. ci boppam euh, waaw mais Côte d'Ivoire organisé tul ñun ñoo organiser parce que ñun ñoo koy recevoir suñu stade. wallaay day sànq si kuréel fii lay ñoo fekk ñu ñëw incha allah ñu jaaral leen fañ daan jaaral ñeneen. amul kese amul tiit amul ragal. loolu nag tos mottali lu amoon solo la dañu ñëw fekk si fii nag ñun suñu mat ci yëpp ñoo ko dóor jël première ci poule yëpp mu ngi noonee kon nag ñoo ñuy am privilège malgré ñoom ñoo ko organisé mais amul tiit amul ragal jóori maam am naa confiance ñoom jarul sax ma leen motiver ñoom xam nañ li leen war dañoo jëloon coupe d'Afrique dañ koy jëlaat ay pression pays organisateur moo ko organisé day métti non non joueurs yi ñu ay joueurs professionnels lañ ci club yu mag a mag mag lañ ne Sadio Mané dem na City accueillir ko mu jàpp leen fi daaw leen fi daaw métti malgré supporters yi fa nekkoon présent Ismaïla a dem na ba Anfield dëkk Liverpool supporters yi tubaka dal mu jàpp gars yi xaw leen a rey et tant d'autres joueurs yoo xam ne ni ay Sénégalais la ñu ci effectif bi Gana Gueye miin na loolu pression boobu loolu du problème dugg na Santiago Bernabéu wane fa boppam et tant d'autres joueurs yoo xam ne ñu ci équipe nationale Sénégal. Koulibaly naka noonu amatuñ pression ci ay club waaye Pape Matar Sarr ay équipe nationale boo xam ne ni moom moo accueillir ak yooyu noonu amul problème dinañ am ñuy wax naan motivation lay doon pour Côte d'Ivoire ci tolof tolof yi bu doon def benn day def fukk bu ñëwee fekk fi ñoo xam ne nii dañoo toog ci seen motivation di xaar ñu ñëw fekk leen fi luñ fi fekk rek seen defet defet jël bu yàgg moom ngay gis foofu. guddal jël moom ngay gis <laughs> wallaay mën nañoo gagné sa match ah mu ngi leer na nañ non mais yow baa leen rek <laughs> yàlla baax na yàlla may ndam ñu jël coupe d'Afrique des nations amin jàmm ci yéen gars yi ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee ba beneen yoon ci yeneen i vidéo jaajëf <laughs> dama ko dugal ay. waaw yaa gaañ ok. non mu ngi nii mu ngi nii eh, Seex boo ko si Seex boo ko si génnal. Yes! C'est bon Les gars jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi am na ñun kese Instagram lañ ko dugal wala dafa kër waay waaw gerte gi mel na no prix waay no rek ko waay dañ teel a ñëw waaw eh eh eh bu dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg xaaral xaaral yow rek laay topp. laay di wax. mais waa ji tàng na. mais waa ji tàng na. mais police. ay Crépin ay Crépin s'il te plaît s'il te plaît. Ñaanco. mais Crépin. Sadio Mané. Sadio. Ensayo. Ñanjo. Ensayo. Ensayo. Ñanjo. Mané. Mais Mané Mané. Al Nasser. Kapi. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais pas, pas, viens me dropper ça. Et Pape le Marseille. Eh Pape, drop-moi ça. Eh Abdou. Okay. eh Seexu boo ko si Seexu boo ko si génnal. Yes. <laughs> jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi waaw ñun kese Instagram lañ koy dugal bu dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg

oto non non sax jàng moom indi fii mais Amadou moo waroon mais dafa dafa dafa dafa dafa mu ngi ñëw waaw waaw maa ngi xool xaam xaal situation bi ba xam euh, comment dirais-je damay dem fële ou pas wala ba xam damay dem fële bu may demul fële ma def la suñu avant rek